mbokki yi yi ñu seetaan à travers Thiès Info Thiès TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax donc ma ñëwaat ak yéen ci benn histoire bu doy waar histoire bu triste donc ki ko dund nag moom laa toogal nii mu ngi tudd soxna Ijatou Khady Mané donc dañ koy bàyyi mu mu présenté wu à travers Thiès Info soxna suñu leen nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi su si kër suuf sant nuyu waa Sénégal gërëm waa seen TV li may Senf Senf moom la laay wax nii. léegi waa ji. waaw léegi da fan nga dëkk nga présenté wu nga wax fan nga dëkk. Ah, maa ngi dëkk école si Senghor école si Senghor Demba Diakhaté waa dëkk à Fass. kii nga kii nga yor sa doom. sama taaw la waaw nu mu tudd. Marème Faye Sall. waaw maa ngi dégg tout à l'heure nga naan da tuddee Marème Faye Sall ban Marème Faye Sall première daam la moom nga ko tuddee. première daam laa ko tuddee est-ce que mën nga ñu expliquer tout lu tax nga tuddee soxna si sa doom bi Marème fay Sall. loolu nag lu yàgg la nag ça fait longtemps nag ma bëggoon nag ah, ma yàlla maya doomu jigéen ma tuddee ko ko. dama mos a neex rek yàgg bëgg ko rek loolu rek ma tuddee ko doom da waaw waaw. xale bi kañ la juddoo ak fan la juddoo. xale bi waa dixième la dixième la juddoo waa dixième ñoo ma jàppale. Euh, ma ba euh, la deux mille vingt de la juddu waaw décembre bi passé. waaw. kon dafa bokk ci bébé de l'année yi moom dafa bokk ci bébé de l'année yi. ah, ah ci la bokkoon. waaw. léegi euh, euh, ana ana papa. Euh, kooku avant ma am doom. ñëwul jëntu waxu doom dara. léegi waa ji. laataa dugg sax ci papaam dama bëgg bi mu juddoo doon bébé de ban taxawaay la am ci moom fan la juddoo. moom dixième la juddoo. ban taxawaay ñi fa ñi fa nekkoon hôpital ba suñ sama suñ dëkkandoo foofu benn maire ak sama yaay ñoo ñëwoon foofu ñoom jàppale damaa pare reer noonu rek mat bi commencé ma noonu ci la gudd na ci laaram hôpital ak sama waa kër famille suñu waa famille noonu benn maire ki jaay ci ay ay tàngal na ci buntu kër gi maire bu baax na yàgg nañu nag yàgg nañu dëkk ñoom bëgg nga ak sama yaay ñoom dañoo ñëw ba ma foofu dem maire bi ñëw moo moo xaalis bi. yow 10 000 si poche dem dem jënd ma ordonnance ak yooyu ci laa mën a non sama nee na la ki ma dëkkal kooku sama tante la waaw yàgg yàgg nañu léegi ne kooku noonu doom doomu jigéen gi noonu la bëggee xale bi nag xale bi koo laal mu meres nit ñi ak yooyu mais dama bëgg xam bi hmm. nga eggee hôpital ban taxawaay la ñu am ci yow ndax taxawal nañ la ñu la war a taxawoo yow ak sa doom. waaw taxaw taxaw nañ ma ci mu taxaw nañ ma ci lii. mu kay émission ah bébé bébé Marème Faye euh, taxawaay bi am ci yow maa ngi gërëm maa xadi rak ñu waa fam fam ñoom kii euh, fam ñoom kii waa kii. ah fam mère Babou. maa ngi gërëm trop trop merci waaw. Euh, maa xadi moo ma jàppale écho beeg analise bi yëpp ak meen meen kooku mënu ma koo fay kooku daanaka moo mu jàppale xaat bi yëpp dixième li li kaandi bi yëpp ak lii moom ko jàppale tey jii waaw léegi moom jàpp su ma ñëwee pour ñàkk xale bi moo ñëw lépp jox ma jox ma bi ma hôpital ñu xool ban jour lay ñàkk ak yooyu ban mois lay ñàkku mu jàppale moom. ndax ah, am daanoo pour fay ko ñu ni mel fay hôpital bi. fay moom problème. non li ordonnance bi rek laa amoon problème te lu junne moo ko mu mu indaale moo ko sax mu laa denc sax moom loolu pour yàmm tàngal ñu waxoon ak li sirop vitamine ak yooyu ñu waxoon. la loolu na tax ma def ko waaye maa ngi gërëm mi men ba ak euh, maa xadi ak waa famille euh, famille ñam kii. Euh, dixième waa li salle d'accouchement fële maternité maa ngi leen gërëm di leen yokku taxawaay ñu ñaan ñaanal ñu jëm si kanam. daal taxaw nañ la taxaw. waa waa kay euh, li ma bëgg a xam mooy euh, Marième fay Sall bébé Marième Faye Sall ana papaam. Euh, papaam moo amee doom ba tey damaa abondé. lu tax nag waa ji faa damaa yaakaar ne su ma ko su ma su ma takk su ma takkee du ma du ma mën a wa travail léegi man digg ba commencé ay jikko du ma dóor du wax di saaga di def ne ndox lii du mën a continuer. non ma première fois moom bee nee doom ji doom ji damay fen ëmbuma waaw baax na dama yàlla àtteeg yow premier ne ci laa ne ni mun a jox ma jox ma ba maa ngi nekk jafe-jafe sonn xam ku may jàppale man nag ma quitté ma quitté foofu dem Tamba ci maire benn bu ba moom jàppale. fi nga doon bi góor la. waaw foofu la waaw ndaw. la exactement lan nga jotee ak sa jëkkër ba muy doxalee di la dóor di la xas di la saaga nga ëmb mu ne la euh, ëmboo. waa waa ji euh, waa ji dafa jël ko dafa jël benn changement lii man naka noonu lan la nan laa def su ma fàttee benn karaw maa ngi maa ngi station karaw fële ci benn xale bu ma fu mu liggéeyee noonu saal bi foofu noonu ay xale bu góob bi dama yaakaar ne ma sëkkawoon na ma maamu daal li ma def sama avant xale ba jànku tey. du ma ko def. ban ban ban ban ban kii nga am ak xale bu góor boobu ba sa jëkkër jàpp ni yéen ñaar da ngeen sekk dara sa xarit la da ngeen doon demalante. non lan dara. sekkuñ dara sekkuñ sekk xarit dong la moom mu ne damaa gisee ma neex ko ma yaru dal ne li nga mel ci koñ bi noonu la jigéen da nga doxalee yaru ak tey ndax waa kese lañ sekk mel noonu change nekk nangu téléphone am jël lépp ndax moo ngi noonu banaan ak yàlla doom ji nag euh, dama ko jur. Euh, mu ngi la doon toppatoo. toppatoo moom avant gis nga ko. gisuma ko lijjantu lijjantuma ordonnance sama yaay muy sama yaay day fóot. takkale ay ay ay wet tamam ay crème defal analyse ñu waa dixième nee lépp jéggal na leen ko lii analyse bi école mun nañ ko may xol bu sedd guy. na waa dixième ma tey jii ma toogee ba assisté ñoom ñi ma leen gërëm nag saa ma jullee rek dañ ñaan yàlla jëm jëm ci kanam yàlla may leen gudd fan ak fekkee ak wér. yaa ngi wax tout à l'heure sa jëkkër daf la doon dóor dellusiwaatal foofu nga expliqué nekkee sa dundin bi nga nekkee woon ak moom dundin bi nga nekke ak moom nan la. waa ji daa ma jox lekk dama doon toroxal di wax lu ne si famille nee maa dof ci yaayam di wax yaayam tout temps mu may xas ñu ma gaaruwaale su ma toggee kenn lekk su ma toggee damaa af sëriñtu damaa dem ba lépp ba baleen nu balaa leen yàlla yàlla atteeg yéen togg togg sax bu ko fi su ma xëyee bale toog su ma toog sonne ba ma sonnee ba ba sonn naa ba sës damay sama bagage dem bale man def sama yoon noonu laa def lan lan moo waral famille bi yëpp bañ la sa jëkkër bañoon la lan la lan nga jàpp famille bi euh, famille bi dañu yaakaar ne man damaa dof ndox ma juddoo kees yaroo fi màggee fi ndox fi laa filaa laa juddoo fi yaroo waaye dañu ñu comme dof man xamul lan la def. ana sa famille man sa famille ñu ngi si ngor fii. ndax waxtaan nga ceeg sa famille. sa famille sama waxtaan nañ ci moom. sa yaay ak sa papa. sama papa moom dafa demoon Kolda moom. sama yaay mu fi moom. waxtaan nga ceeg sa yaay. sama waxtaan lan la sa yaay digal. sama yaay ne boo remee rek wax nga li ñu leen li ñu daan def rek ci ci kër gi rek sa histoire rek fu mu yem rek wax la ñoom ñoom looloo wax waaye sama yaay dafa a jàpp da waaye bu doon loolu day ñëw waaw. mais mais mais fi mu toll nii yéen a ngi sëy sëyatu leen ana moom sëyatuñu léegi. moom moo la may baat. ba mayeegu ma nag. mayeegu la baat. mais nekkatu leen. depuis combien de temps. yàgg na de moom am naa fi am naa at moom fi laa tabasee fi la fi laa def da yëpp. at gisoo sa jëkkër. gisuma ko te mayu a baat. mayu ma baat. te yónneewu la depanse defalu la dara xale bi est-ce que mu ngi koy toppatoo. toppatoo ko xale bi maa ngi liggéey maa ngi liggéey jànk. waa côté fële ci écosystème nga boo jàddee noon de nga am côté boo laay liggéeyee mbéy mi mu fay sax mois bi vingt mille. waaw su weer bi deewee maa ngi fa sama doom may sama am. may sama yaay te loolu ñu am ñoo ngi bokk maa ngi bokk sama yaay ak sama doom. waaw moom mooy seen taaw. mooy sama taaw. kon moom fi mu toll nii toppatoowul ay ay doom. lan nga bëgg exactement yow. man képp ku ma ku ma képp ma jàppale képp ku ma jàppale si doomu julli rekk na yàlla fay sa xol noonu. Euh, Marème Faye Sall nag euh, dama yàgg bëgg yàgg bëgg ko trop moo jëkkëram kii Macky Sall. na ko yàlla mayee doomu jigéen ma tuddee ko ko képp suñu jàppalee nag bu lu ñu may lu ñu may rek bu ñu am fu ñu dugalee rek loolu laa soxla woon. wàllu lan dëkkuwaay suñu mayee rek fu ñu mayee fu ñu dëkk rek benn li am benn lañ am sama day yëndoo fóot day yëndoo fóot bu diggi day jaay fonde lu mu am mu ngi mu ngi am njabootam yi ñoo ngi ñoo ngi liggéey yooyu lu ma am nag lu ñu ne benn benn ngay am ñu fay luwaas chaque mois ñu fay luwaas lu ma am ma bokk sama yaay ak sama doom kese bépp mën a fesal bi ñu jàppalee incha allah rabbi képp na doom julli bu ñu jàppalee na yàlla fesa xol noonu noonu laay wax na bëgg daal ku la jàppale Marème Faye Sall ak jëkkëram jàppale waaw am ay rakk samay am may am may doom ñu kenn ki mu ngi ci bàjjale moo ngi jàng simple daal salaam seen daal ak keneen ki mooy rakkat bu góor bi moo ngi jàng instant kooku ak moo ngi jàng ak alxuraan ak français kooku moom xale la moom ak ak sama cartier bi ndaw bi xale bu góor moo moo ngi jàng fii arab waaw. maa ngi dégg nga ne sa jëkkër un an wa ngi ni déggantu leen xale bi moom moo ko tudd. xaale bi ñu. Marème Faye ci yow la jógee ci moom wala ci kan la jógee. ci man la jógee. kon moom ce qui veut dire tuddul doomam. tudd doom benn xar la fi indi sama yaay ndox ñun kenn soxla dara. benn béy bu ndaw ak benn saaku ceebam. sama yaay moo sama papa moo motali lu ñu tuddee ak yu ñu jënd laax beeg yooyu kese sama yaay sama papa moo ci motali ak yooyu kese. mais est-ce bisu tudd bi moom teewul. moom te est-ce que boobu ba léegi woo na la pour xam doomam fu ci lan li li asaamu daw sax moom dafa ci doomam. sama doom man mii man maa taxaw sama doom ma xëyee ma ñafe jour anniversaire am ñëpp laa invité waaye li ñu ni ci yére ndox macha allah ku ne ku gis bi rek koñ bi ku gis xale bi rek war neex yére mu ko anniversaire am man may sama xaalis gis sama 15000 jun heureusement jënd ko te ma am laa yemal sama gis sama cravate ak sama fataay yooyu yemale anniversaire bi defal ko rek pour rek loolu laa def. à travers Thiès Info nga wax ak sa. jëkkër parce que comme mayeegu a baat te toog ngeen at déggantewuñu soo amoon loo koy wax à travers Thiès Info nga jàkkaarloog caméra bi lan nga koy wax. man de damaa bëgg rek mu ma sama mu libéré ma doom ji sama doom la ma moom doom ji. yéen ñaar a ko waaye doom ji moom bu ñëwee ci yoon tey man maa ci maa ci ak sama yaay ñoo ko ñoo ko bokk ñoo ko wax moom dama ma sama baat de. ma bëggaal dundaat beneen beneen euh, vie kese ak sama doom kese laa soxla. Euh, ndax nax lii nga wax nii nax ndax ndax toog ngeen nga ñaan ko baat wala ba tey yéen ñaar toog leen. tooguñu tooguñu keroog wat watu na fi keroog ay cinq appels cinq keroog woo na fi cinq ay appel jëluma ko sama papa jël ko ndax man du ma. Euh, sama papa la woo ndox dëkk moo ngi woo ndox man soxla ma ko lijjanti ma ko tey avant ma jii sama yaay la mu est tey bu ngeen jëloon appel yooyu du ngeen amoon du ngeen gindeeku est-ce que bëggul woon waxtaan ak yéen wala li ni moom euh, warkar la ak ay ay baadoo la ñoom jaruñu jaruñu jaruñu wétu dara si man soxla ma leen sax message ni moom li ñaan si ñoom de moom sama baat bis ma séparé ñoom si jàmm doom ji ne sama doom la bis bu ne bu màggee ba njëriñ njëriñ si moom mooy xool choisir tey ji dem kër baayam choisir dem kër ndeyam mooy loolu laay ñaan rek sama doom waaj day liggéey moom li liggéey garde garde corps station lañ koy jël ak enfoncement euh, mandat yi mooy oto yi lay bind nii ñu dem client nag yi mu jël ci am xaas am am na place bu am am benn bureau foofu lay fa lay liggéey ak yooyu non non dëkk ba euh, fu lay mandat mooy dëkk frontière bi waaw donc mbokk internet yi comme ni ngeen ko déggee mu nekk histoire bu xaw bu doy waar donc moo ngi nii li muy li muy li li mu expliqué yëpp euh, euh, mu nekk lu lu metti loo xamante ni ñu ngi ñu ngi ñaaxaat suñu mbokk góor ñi tamit ñu ñu bàyyi bàyyiwaat xel ci seen i taxawaay ak seen i doxalin à travers euh, seen seen seen soxna yi ndax parce que bàyyi ñëpp ne yow la bëgg kooku amoo amoo fayam gis ngeen ko ni elle est tellement mignonne macha allah ah oh. bébé Marème fay Sall ñëwal yëkkati ko. donc gis ngeen ko nii ah euh, euh, jour jour jour jour décembre la le 31 décembre. donc jour de l'an 1er janvier 2022 euh, ah ci la juddu moom mu am yëg-yëg tuddee ko Marème fay Sall donc mu ngi nii elle est elle est belle dégg ngeen message bi mu lancé donc à travers Thiès Info xam naa ni incha allah di nga ci di nga ci di nga ci am ay revenu yu yu ama am solo ñu bàyyi la rek nga wax sa kàddu yu mujj ah sa kàddu yu <laughs> samay kàddu yu mujj léegi moom. Mm. ñàkkoom bi waaw chaque jour man ma xool moment bi mu ñàkkoog yooyu ma def ko. waaw mm. mu ngi koy suivre normalement mu koy suivre mm. waaw. dara jotu ko. ko dara ko waaw. ci lekk ba suur mu ngi naan ba màndi. gone gi moom lépp li li war doom li doom rek li war doom rek man man yaay man maa koy def xëy ñafe ñaanuma kenn xooluma kenn ma xëyee lu ma am bokk sama yaay lu ma am ne lii laa doon sama yaay. kon loolu laa war a wax kon di gërëm waa dixième nag di gërëm maa xadi mi mu jàppale ak men ba ak waa famille yi ñu nag loolu laa am wax nag waa salaam moo ngi nii mm. bi mu nekkee bébé aussi également moo ngi nii moo ngi nii ah defal nii rek donc ah euh, dañu fii rek xale baa ngi nii bébé Marème fay sàll comme ni ma ko waxee rek moom muy juddu euh, premier janvier trente euh, trente et un décembre bi donc bébé de l'année la ah mu ngi nii ma bàyyi ko mu joxe numéro téléphone am rek. 77 77. 58 mu ngi noonu 77 313 20 58 ñu ngi leen di sant bu baax di leen di leen gërëm bu baax macha allah.